maa ngi leen di fay waa Sénégal maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax ah, ah, waaw sama frère euh, artiste la ñuy artiste comme moom muy waykat ñuy animateur donc événement bi bu jotee kii way dafa war a ñëw mais kii animé aussi tamit dafa war a ñëw bu baax surtout boobu boo xam ne am na son yu ma gën a déglu genre man aw moon chance su dem ci séance dëkk bi laa ko déglu mais genre son quatre ba cinq son déglu naa ko foog naa ni album bu riche la parce que son yu ma dégloo bu ci nekk mën na nekk tuuti hmm. ah, waaw xale bu am yar la xale bu am ambition la innovateur la quand parce que depuis mu ñëw ba tey ay it rek lay génn donc euh, son bu mu génnee dañ koy fawal ko dañ koy donc euh, am na benn autocritique bu mu def pour moom mais débat ay bëggee rek lay way moo ko defal boppam ah. ah, moo defal parce que parce que xam naa daa dégg sénégal yi di wax ñëpp après il l'a fait mais gars ni moom bëggee rek lay way donc mais cette fois ci nañu xaar album bi dinañ ci gis lu bare bare bari donc ñu ngi koy commencé gis ci album bi et vraiment xam nañ moo koy bëgg rek di ko way mais mën na leneen ak leneen ak leneen waaw mu nekk ci li mu nekk ni rek nekk ci tranquillité bi nga xam ne moom la am nekk di liggéey sans bruit et il moom ki euh, laisse sa musique mu def bruit bi nga xam ni moom la war a def ñu ngi koy souhaiter une très continuation. ok en tant que animateur noo gisee moom mu ngi génne moom moom mu ngi génne album tey wala si mu génne album wala mu génne album. le charme de la musique sénégalaise donc c'est bon pour le promoteur c'est bon pour le public c'est bon pour animateur bi c'est bon pour ñëpp la baax ci ñoom parce que tey événement bu amee Pape Diouf tëgg fii waali tëgg fii Siri tëgg fii Jéba tëgg fii c'est bon pour promoteur yi ku ci nekk da ngay am euh, loo xam ni euh, moom ngay jël yóbbu sa kër animateur bi Aba animé fii kii animé fii kële animé fii ñu am lu yóbbu seen kër lépp public aussi on est 17 millions mënuñu dëpp dem ci benn salle salle bi fi gën a mag 1000 lay def xaw ma 2000 donc ku ci nekk mën nga am foo dem et puis loolu mooy tax affaire yi dox loolu rek mooy tax affaire yi dox c'est bon la concurrence parfois si c'est bien fait si c'est la concurrence saine donc euh, c'est c'est ça marche quoi maa leen di jaajëfal waa Sénégal déggee bu baax a baax a baax respect